ba tax na sax Sëriñ Seex Gaynde Fatma mi nga xam ne mooy ab taawam ba mu fi bëgg a jógee dafa woo Sëriñ bi bu nekk ko dénk naa la sama bopp pour bu ma fi jógee li ñu li ñu li ñu li li ñuy defal nit ci gannaawam lépp taxawu geeg yëpp yëpp di dénk naa la ko waaw bari na ci ay kilifa yoo xam dénk ba ci Sëriñ Mor Mbay Siise mi nekk Njaaréem moom loolu la dénkoon si ne heure bu ma fi waxtu bu ma fi jógee nañ ma ko nañ ko nañ ko na ma na ma na ma na ma taxawu kon loolee nag ab ab cër la yaakaar naa boo xam ne moom moom moom mag ñi xawoon nañ ko ci moom waaw digganteem a gannaaw sëriñ bi nag moom dundaan na fi lu yàgg nag ndax daanaka bu ñu xoolee ci saaxi rek daanaka ba mu ba mu ganee jamono ak ni fi sëñ bi jógee ma desoon naa wax ne boobu at yi lool ndax ci ay nettali mi ngi ganee jamono ci 1907 moog sëñ Abdoulaye borom dër bi ñoom ñoo bokk ñoo ñoo ñoo maase ñoo bokk at te sëñ bi mi ngi fi jógee 1927 kon boo ko xoolee rek daanaka du weesu bëgg a àgg ci 30 ans wala bokk euh, waaw waaw